que ni dañuy indi Mamadou Dia ak rek daal di teg ne ñoom ñaar ñoo daan ànd waaye gis nga dañu mujjee après yu ni mel. Hmm. waaw euh, en tout cas diggante président Ousmane Sonko ak euh, euh, président Bachir Diomaye premier ministre bi ak président Bachir Diomaye ku ci wax wax joo xam ne rafetul sa yéene ngay wax. Hmm. am na ñoo xam ne tey li ñu seen yéene bi gën a rëy mooy ñoom ñaar ñu am problème loolu moom ñun ñëpp xam nañ ko. te lépp lu ñu mën pour loolu am it dinañ ko def dinañ ko def ci ay xërëm dinañ ko def ci tappale dinañ ko def ci jaxase waaye loolu nag aussi dama leen di wax ne leen loolu euh, dañuy sonal seen bopp nañu dem toogi parce que diggante Bachir ak président Ousmane Sonko ñoom yàlla da leen ko nëbb maanaam la maanaam diggante la boo xam ne euh, yàlla rek moo ko téyel boppam dénk ko beneen nit ku ci jéem it da sonn parce que tey boo laajee waa kër Sonko nga laaj waa kër Jomaay ay seeni mbokk ku nekk nga laaj mbokki deretam da lay da ngay xam ne sax munu cee sori. Mhm. parce que li nekk ci suuf dëgg-dëgg kenn xam ko ku dul ñoom ñaar ak yàlla mi leen bind. diggante yu mel noonu ku ciy jéem wax wax yu yoo xam ne wax ju ñaaw la wala yéene bu rafetul ci sa kaw lay këpp rek mais ñoom ñaar li ñu war a doxal dinañ ko doxal euh, Ousmane dama jàpp ne. Euh, premier ministre mu nekk ko moo gën ci réew mi parce que dafa ñëw pour defar réew mi man man démb bi ma déggee président bi wax ne dinañ xeex corruption xeex bu taratar mhm. Bachir wax loolu ma imaginer léegi dëkk bi dossier yëpp tey ci loxo Sonko lay teeree si mhm. mooy premier ministre bi mais loolu dama cee kontaan loolu imaginer dossier yu lëndëm yi ñuy làq tappale yi dossiers yi ñu tegoon conco yii ñu teg ci ndëggu yi ñu gas suul yooyu yëpp tey war a teeree ci tey ci loxo Sonko mais loolu xéewal la pour réew mi parce que am na dossier yoo xam ne bu ñu ko jëlee rek man waxuma dara mais ci dossier bi xaalis bi ne ci gannaaw te damay wax ne Moussa Ba ku la wax ne diw dénkoon nañ ko vingt milliards milliards yi réer waxul dëgg dañ koo denc kenn lekk maanaam milliards yi lu muy bari bari kenn lekku fi benn milliard yii dañ koy tabaxee ay kër yii ñu def ko ci ay kont mais loolu récupérer ko day yomb dossier yooyu rek li ci li ci euh, président bi mën a jëlaat delloo ko ci réew mi kenn xamul nu mu toll donc Ousmane tey fii mu nekk fii la baaxee lépp réew mi ci loxoom lay tegu ci moom lay mujj mu xam lépp ci lay mën a defar xam fan lay jooyante lool bu nekkul woon fii du ko mën te man gëmoon naa ne man man dama gëmoon ne Sonko fu mu nekk baax na def naa wax naa ko samay xarit yu hmm. bëri ne leen man bu ñu xëyoon ñu ne Sonko dañ koo fal comme chauffeur bay dawalal joomaay moom dina jël loolu te du ma bett loolu du yàq dara nag li mu war a wax Diomaye ak li mu ko war a xelal pour mu teg dëgg réew mi ci yoon parce que cest à que Sonko li ko yàlla may dafa néew sénégalais bu mu ko may Sonko dafa fàtte jëmmam jëmmam amul bo dafa fàtte jaam hmm. mais lim nangu nii tey mais nit ku defaruwul nangu woo ko. Mhm. wax naa ko dem ma ne leen Sonko sa bi mu am mooy dafa jàng siira jaar jaaru yonent bi la jàng te koo dégg. Mhm. wala boog da cee dégg lu bari mais Bécaye. Mhm. est-ce que xam nga ne am na xare yoo xam ne. Seydina Aboubacar Siddiq mu ngi ci biir xare bi. Seydina Omar mu ngi ci biir xare bi. te te keneen la yonent bi tànn mu jiitee leen. wallaay xam nga loolu daanaka danga naan lii mën na nekk wala. mën na nekk wallaay waaw. moom Sonko jàng na loolu. xare boo xam ne Amr ibnul Ans moo leen jiite wala Xaalid ibnul Walid moo leen jiite te ñooñu dañoo ñëw 4 mois wala 3 mois. yonent bi ne leen yeneey jiite. ne ab Aboubacar demal ci sàppe si. Omar demal ci sàppe si parce que nit ku defaru. dooy xalaat man maay jiite wala du ma jiite. gis nga euh, boo euh, boo jàng euh, Ibnu Achir. da jàngal ne ñaawteef yëpp seen ndey muy bëgg njiit su ma jiitewul. du baax su ma jiitewul du ma du ma liggéey. Mhm. kooku nit ku feebar moo koy def. président Ousmane Sonko dafa wane ne man fu ma mën a nekk ci réew mi position bu ne rek dinaa liggéeyal réew mi donc Sonko fan lay nekk ak fan la dul nekk loolu amuñu problème boobu léegi nag ñun li gën ci réew mi mooy tey mu nekk premier ministre léegi di liggéey euh, di tabax man li ma gën a neex man dama naan sax est-ce que du. Euh, yéex a tànn ministre yi euh, de maanaam gouvernement bi li mu yéex a génn. Mhm. est-ce que tànnin wi sévèrul. maanaam. maanaam ni muy tànnee mhm. critères yi muy tànnee ministre. mën na métti. Mhm. du jot rek nekk ministre. parce que xam naa ne moom seen gouvernement premier critère bi mooy jub. waaw di nga di nga jub dinañ la càmbar. damay ragal ne ci Sonko ci la ñuy tàmbalee ñu ne kaay ñu far le ministre nga ne jéggal leen ma. parce que ministre da ngay mujj kenn dootu la ñee mais dañ lay yërëm ci fitna ngay nekk ci fitna ngay nekk naturellement boo xoolee Sonko ni ko yàlla bindee du nit kuy toog maanaam foo ko fekk ci activité lay nekk buy wàcc escalier sax day daw xam nga tey mënoon nañ toog naan kilifa gi lañ fa léegi ma buy wàcc nag escalier yi na dox ndànk dégg nga diplomatie lii la laaj. Mm. mais day daw foo ko fekk day daw mënul dox ndànk. ak sañ pass yëpp de waaw. waaw léegi loolu li muy wane muy liggéey dong nga fi am rigueur la laaj. Mm-hmm. donc man vraiment jàpp naa ne ñoom ñaar. Mm-hmm. fu ñu mën a nekk eh, li gën ci réew mi loolu la yàlla loolu la yàlla def ñu gën a kontaan. Mm-hmm. xam ne gouvernement bi day dina tegu ci yoon. ñoom ñaar incha allah dinañ indil ngëneel barke. tawfiq naataange waxuma la Sénégal mais Afrique yëpp dinañ leen ko indil incha allah. c'est important loolu am na solo en tout cas loolu la ñëpp di ñaan su ko defee rek. Mm-hmm. ba ñu ñëw ci discours démb bu président Bassirou Diomaye fay bi. Mm-hmm. Euh, nga xam ne am na ponk yu bëri yu mu def notamment ci justice bi ñëw na ci. Mm-hmm. Euh, fexe ba nga xamante ne. xeex euh, indi ay xeex ger bi euh, wax na tamit ci lu jëm euh, processus électoral bi mhm. wax na tamit ci lu jëm ñi nga xamante ne maanaam réforme yi war indi ci justice ne dañuy def benn assise yoo xamante ne dañ ciy dugal ñëpp greffier bi mhm. magistrat bi avocat bi ñëpp waxtaane ko waaye yemul dong ci justice am na yeneen pàcc yoo xamante ne waxtaane ko mooy ndaw ñi tamit dégg na leen mu mhm. ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax